ni euh, ngi noonu la xew ca tubaa ñu ngi leen di euh, masawu bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo dëkk kër ñang dem ba ci Daaru Xudoos 28 foofu yëpp ndox la gis nañ aussi ñi nga xam ni ñoo di tubaa ca kanam ñi ngi euh, defar ay abri provisoire ngir ñi nga xam ni rek impacté nañu ca inondation yooyu ñu mën fa nekk alors ñu jugee Touba Mbacké dem ci gàmm gi mm-hmm. jóge woon nga fii dem nga Kaolack am na ñu demoon Tiwaawan am na ñu demoon feneen ak feneen mais gàmmu gi dafa bëri euh, polémique bu ci am euh, ku ci mel ni Serigne Moustapha Sy euh, njiital Moustarchidine wala Moustarchidaat ba noppi nag de la chef religieux bi mu yor dafa nekk beneen casquette casquette politique ndax xay xam na ni moom moom parti bi du pur yëkkati na ay kàddu jëmale ko ci nguur gu wees gi ndax ñàkk gun fa ñàkk dem ak relation yi nga xam ne amoon nañ ko ginnaaw bi ñuy nekk ci ku jëg politique yi alors naka ngay jàngatee sorti Serigne Moustapha Sy bi waaw euh, jërëjëf Abdou Khadre comme ni nga wax rek man maa ngi woon ci gàmmu gi maa ngi woon Kaolack di siyaar euh, waa kër Maulana Cheikh Ibrahim yëpp. Mm-hmm. di siyaar particulièrement sunu sëriñ bàyyi Cheikh Mamour Insa bëgg bàyyi yàlla na ko fi yàlla yàggal lool. te wéral ko donc euh, effectivement ñun ci yooyu lañ nekkoon. Mm-hmm. je pense après laa gis des coupures Serigne Moustapha bon je sais pas quoi en peut-être que sax duggul moom ci euh, en profondeur. ci lan moo xew. Mhm. bon euh, man it maa ngi woon ci kii yi. Mhm. Euh, j'ai pas suivi intégralement li nga xamante ne moom la wax. Mhm. donc te bëgguma wax lu ma xamul. foog ma xam lan la wax ban contexte la ko waxee lii li mu doon def di discours fan la process bi yëpp lan la. ak le lan lan mooy problème bi quoi. alors Ousmane Ousmane Sonko dem na Thiawane jaarul ci moom. ziare ko comme ni ñu ko daan defee euh, tey jii aussi nee na jàppale na Ousmane Sonko bi mu nekkee dans la coma bi ñu doon wax moo dépêché benn docteur ne ko saytul ma ko dem na ba sax docteur bi ñëwatul ci këram ñëw euh, demoon ñibbeewul këram ngir saytu wér gu yaram Ousmane Sonko ndax bu amee lii gannaaw yàlla moom participé na ci. waaye mhm. mais maintenant c'est quoi le problème. ñàkk gum fa ñàkk dem. ah donc xam nga xam nga moo tax ma ne la balaa maa mën a xuus ci loolu. Mhm. il faut que ma xam lan moo xew lan moo tax demu fa. Euh, wala boog est-ce que euh, question la bañ a dem bala xamaguma mhm. comme je ne sais pas nag bugguma xuus ci loo xamante ne. d'accord euh, maîtriser wu ma ko pour le moment. ñu war na ci aussi euh, wax li nga xamante ne mooy ci sama xalaat. d'accord d'après que bu ma xamee qu'est-ce qui ñu war na aussi ci coow li nga xam ni moo am gannaaw bi nga xam ni président de la république son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye dissoudre na assemblée nationale am ñu nekkoon ci ginnaaw ne euh, moom Bassirou Diomaye Ousmane Sonko moom moo koy dikkee mu ne ko jëlal sa courage ci say ñaari loxo jël réew mi doxal ko ndax yow yow la ñu fal faluñu keneen askan bi yow lañ fal. waa mais Sonko mooy Diomaye euh, Sonko lañ fal. man loolu laa gëm. mais euh, euh, président Diomaye la ñuy wax président de la république. waaw mais bu muy wax président de la république dañ ñu ne. Sonko mooy joomaay man boog li ma fal. waay bi ma dugg waaw Sonko mooy Diomaye la. mais Sonko mooy Diomaye teg. waaw ni Sonko mooy président. c'est Ousmane Sonko c'est euh, nga xam nga président de la ku nekk jii di sa xalaat mm-hmm. euh, man personnellement. Mm-hmm. et j'ai dit mooy Diomaye. Mm-hmm. man loolu laa fal. d'accord alors donc kon tey jii nii euh, dicté. wax naa ko fi am na ñoo xamante ne biir Pastef au delà de Pastef ay la. am na. waay mais man gëmuma ne Diomaye taalibe Sonko la. gëwuma loolu. gëwuma loolu man dama jàpp ne ils discutent ils peuvent ne pas être d' mhm. te loolu sax mooy ànd nag bu sincère. waay d' accord discuter. Mhm. débat de lu de loi là jaillit la lumière. effectivement mais euh, dicté wu la. wala assemblée bii nii euh, dañ ko fi waroon a bàyyi muy continuer di gàllankoor la gouvernance du président. ndax li ñu wax ni Ousmane Sonko dafa waxoon ni président dina def déclaration. man wax naa ko déclaration. non ni dina dissoudre assemblée nationale DPG du am. Euh, ko doon xaar. ji peut-être que je vais utiliser euh, une expression moins moins moins moins moins extermination mais man wax naa fii ne dañ ko war a dissoudre quand même. wax naa ko wala wax nga ko eh, wala man maa dicté Diomaye léegi. <laughs> non non alors mais donc dis donc. waay au vu d'un ensemble de faits. Mhm. président Diomaye man jàpp naa ne li may wax nii. lu ma gëm la lu may wax nii yu am confirmation la président Diomaye dès le début euh, de son magistère bëggul woon dissoudre assemblée. d'accord bëggu ko woon dissoudre du tout. amuñu woon mbëbëtu dissoudre ko waaw justement c'est-à-dire gis na ne assemblée bii nii mm-hmm. pare na pour compromettre sa gouvernance mais il ne va pas rester les bras croisés assemblée bi président Diomaye daf ko naroon a bàyyi mu dox mm-hmm. bu ñoon rek ñoom jël na am nañ la hauteur mm-hmm. la responsabilité nécessaire pour accompagner cette nouvelle aspiration du peuple waxuma la du président Diomaye de du du du du président Diomaye du premier ministre Ousmane Sonko mais askanu Sénégal ñoom ñoo ànd ci euh, lii nga xamante ne moom la président Diomaye joxal projet bi. Mm-hmm. askanu Sénégal ñoo ko adopté. Mm-hmm. alors comme que askanu Sénégal adopté nañ lii mais président Diomaye di ko doxal. Mm-hmm. assemblée ne ko doo ko fi doxale ah te du projet am na dissolution euh, au conseil ak conseil économique. ah oui am na ci. sénégalais xool gis ko écrit noir sur blanc. sénégalais dem voté ji loolu à 54 pour cent assemblée ne leen du fi am kon assemblée en Euh, compromettre Diomaye mhm. mais aspiration sénégalais la bëggul a entériner d'accord alors léegi président Diomaye di doxal mhm. assemblée euh, di di di di yoxal mhm. yaa ngi may dégg. président Diomaye di doxal assemblée di doxal. donc président Diomaye andi leen projet bi nga xamante ne askanu Sénégal yi ñoo ko adopté ñu bañ. ba pare taxaw ne premier ministre Ousmane Sonko na euh, nañ voté motion de ah, ah, censure contre son gouvernement. Mm-hmm. donc loolu lan lay firndeel mooy ne assemblée bi nga xamante ne président Diomaye. Mm-hmm. amoon na mbëbëtu continuer ak ñoom. Mm-hmm. ñooñu amuñu mbëbëtu continuer ak moom. amuñu mbëbëtu. accepter li nga xamante ne mooy la volonté des Sénégalais exprimée le 24 mars. Assemblée nationale boobu noonu amuñu euh, taxawaay. accompagner le gouvernement dans le process bi nga xamante ne moom le peuple sénégalais bi adopté mm alors loolu noonu yëpp nag je le mets ci Pastefu euh, Abdou Mbow ah bon ah oui ah oui ñama jot a euh, déggool ci ñi nekk ci groupe parlementaire benn Bokk Yaakaar nee nañ Abdou Aziz waaw ñi nga xamante ne waxtaan naa ak ñoom. Mm-hmm. ñu bokk ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar nee nañ yëguñu Abdou Mbow ba muy jël euh, taxaw dugg ci kii bi rek ne motion de censure yëguñu ko. ah bon dafa dafa dox ci ndigalul boppam. xaw ma kan moo ko digal waaye ay membre euh, groupe parlementaire Benno Bokk mm-hmm. Yaakaar moo confirmé ça alors donc loolu noonu moom qu'est-ce qu'il y gagne Abdou Mbow. je sais pas euh, wu. compromettre wala jéem a compromettre wala barrer la route au projet bi nga xam ne Sénégal yi nga lan lañ ci jublu. Mhm. kenn xamul waaye li wérte wóor mooy sénégal yëpp constaté nañ. ñoom seen bopp constaté nañ. Mhm. leur volonté manifest et ouvertement manifeste sax. Mhm. de euh, euh, li nga xamante ne moom la yi am muy projet bi président Diomaye yor. waaye léegi yow ba ngay nekk au pouvoir mënoo ko woon bañ demee woote maanaam mbañ gàcce ga munoo ko woon bloqué mbañ gàcce gi jëlee la ci pouvoir bi yóbbu la ci opposition bi munoo koo bloqué tey ku la gën loo ne mën nga koo bloqué da lay nax d'accord projet bii nii mi ngi en marche mhm. les sénégalais le peuple sénégalais adapté na ko vox populi vox dei donc kon tey jii nii euh, Ousmane Sonko euh, moom moo joxoon président Diomaye mhm. ba muy joxoon président Diomaye il avait plusieurs cartes autour de lui Euh, notamment d'autres yu ñuy woon fiche de parrainage bokk ci parti hmm. Birame Souleye El Malick euh, docteur Cheikh Tidiane Dièye Guy et tant d'autres il a porté son choix sur le président Diomaye président Diomaye aussi avant muy dem élection bii nii le 24 mars passé hmm. demoon na élection locale à Ndiaganiao il a perdu hmm. il a perdu à Ndiaganiao et il vient de gagner ci l'étendue du territoire au premier tour sans recours et sans contestation mooy Sénégal euh, président bi a rafet palin premier tour. Mm-hmm. sans recours sans contestation amul keneen ku ko am Sénégal. Mm-hmm. alors donc tey jii bu yegsee ba foofu noonu nag ci ki nga xamante ne yéen ñaar yéen a bokk projet. Mm-hmm. partagé ko je pense que avant muy dugg prison dernière intervention mi moom mooy meetingu Kër Massar ba yaa ngi fàttaliku. ba muy jóg di aalu aalam boobu noonu mais kooku kooku leader boobu noonu moom la accepté moom président Diomaye comme mu nekk son leader politique. le premier ministre Ousmane Sonko ba muy soxla ku mu ku ko wuutu. ci mbir mi parce que teg nañ ko injustice. ci président Diomaye boobu la gis boppam. Mhm. waa ñoom ñaar euh, li leen boole di Sénégal muy politique une vision commune. Mhm. un projet commun. Mhm. ñu teg ko di ko doxal ngay ñëw ne way diw de di diw loolu du jaxase mbaa. nuru na ma ko lool jaxase boobu nag wax dëgg yàlla. wax dëgg yàlla c'est c'est c'est aussi peine perdue parce que am na ñoo xam ne seen ligne d'opposition. foofu lañ ko mën maanaam amatuñ benn argument bu dul. na Sonko ak Diomaye jaxasoo. loolu tamit c'est ridicule pour un intellectuel. d'accord alors sëñ Moustapha Sy aussi magnifié na lu liggéey bi nga xam ni ministre de la de l'intérieur def na ko di Jean-Baptiste Tine ndax euh, dem na sax bay expliquer ni euh,